amiin <laughs> alors euh, Badiabal on va on va on va faire une une, une autre euh, rétrospective. Mhm. alors Madiambal cette élection là euh, a été un séisme. Mhm. Euh, pour la première fois au Sénégal en parti d'opposition remporte l'élection au premier tour. Mhm. et puis euh, ñi doon xaar deuxième tour <laughs> am na sa des opposants déroutés ñi doon xaar deuxième tour tout le monde a été surpris euh, lan moo expliqué euh, ci sa gis-gis la tournure de cette élection Bassirou Diomaye Faye qui n'a pas fait deux qui n'a pas pu bénéficier de deux semaines de liberté propulsé au palais de la de la République au soir du 24 bon raison yi ko expliqué bëri na première raison mooy dafa nekkoon élection référendum la woon référendum moom benn tour lay doon ñëpp xamoon nañ ni c'était le camp de benn Bokk Yaakaar contre le camp de l'opposition incarné par la coalition Diomaye président moom parce que moo fi nekkoon quelque chose de euh, existé li ci des lépp c'était vraiment euh, nga baal ma expression bi mais c'était le menu fretin wala nañu élection parce que candidat yu ci bëri c'était vraiment des candidatures de figuration donc élection bi ñaari ñaari rek la nekkoon bu amoon candidat bu demul woon it euh, bu amuloon bu amuloon bu jaa jàll woon ci premier tour bi aussi deuxième tour bi aussi. Euh, franchement on aurait eu le même résultat nga defe ne. non non mais on aurait eu le même résultat honnêtement. Mm. Euh, franchement tel que c'était parti on aurait eu le même résultat et surtout que aussi li gën a dynamique bi nga xamee ne que porté na candidature Diomaye Faye cette dynamique là elle était depuis élection locale deux mille vingt deux mille vingt deux du moins. élection locale les Sénégalais ont voté bi ñu législative ñëwee nañu voté woon local la ñu voté waat présidentielle dañ ko accentuer nañu voté moo di une sanction un rejet contre Benno Bokk Yaakaar li ko gën a renforcer nag xam nga lan moo ko gën a renforcer Benno Bokk Yaakaar ci boppam moo xeex Benno Bokk Yaakaar moo xeex candidat Amadou Ba c'est ça la vérité aussi Benno Bokk Yaakaar candidat taxu naa ko télévision RTS ba wax ko man leen que même yéen waa Benno bu fatt seen bakkan sax di woteel Amadou Ba bay boo ngeen def ko ndax bu ya bu bu bu perte yéen ay perte yéen ñëpp da ngeen ko yëg am nga xam ne dafa am benn DG ba nga xam ne semaine bële passé bi ñu koy relever quoi dafa ma woo quoi <laughs> dafa woo ni ma mais grand la nga waxoon gis naa ko man de xalaatu woon ni premier décret ban lay génn na kon xam nga tey xeexoo woon Amadou Ba bopp nga doon xeex c'est exactement ça c'est que dof weesu nga dikk bañ ki nga bokkal bay dooleel sa sa noonu ba sa noon gañee mais sa noon dafa bu day place ba nga yoon da koy jox ay nitam da koy jox ay nitam donc kon ñoom ñoo xeex seen bopp te ku ne kenn du umpale fii nii amadu Ba benn bokk yaakaar na ko xeex bëccëgu rek kam kon ñoom mënuñoo gagné élection bu dee ñoom jàppale ñu seen candidat mais kan mooy jàppale seen candidat donc élection bi en quelque sorte lecture bi yomb na Benno a tué son candidat et a fait élire Bassirou Diomaye Faye il y a des responsables de Benno qui ont voté Bassirou Diomaye Faye et qui l'ont assumé kon kay de Benno yow maximiser yow yaa ngi ñaan ñu naan ko affaire bi cóol na. voté nañu ñenn ñi joxe nañu moyen ñenn ñi joxe nañu consigne consigne ci suuf. joxe nañu moyen joxe nañu consigne saboté nañu c'est ça la vérité aussi xam nga wax ci buñ ko yërëm aussi may mun a. xam nga boo jëlee cartographie élection bi hmm? boo xoolee zone yi nga xam ne foofu la benn doon gagné même bu fa gagné on a minimisé son score la bas lu ko fa waral tu prends le Fouta par exemple exemple concret jour élection am na zone yaa xam ne bureau am de vote yi Amadou Ba dafa bulletin dafa manqué woon rajo yi wax nañ ko am dem. Hmm. mais naka nga mën a organiser ay élections yow pouvoir sa bureau candidat sa candidat. à à Touba jusqu'à 15 heures pas de représentant de il y avait pas représentant de Benno euh, euh, loolu xam nga kon yow parti au pouvoir di organiser élection nga nekk ci ay bu amoo représentant sa candidat mais kon lu ñu fa def sa ginnaaw mënoo ko jombat yooyu c'est des faits que les gens ont kenn du ko nii amul kenn ku sañ a taxaw fii ni la ko Benno saboté na Amadou Ba ñoom ñëpp ko saboté ñoom affaire da ñoom ñëpp c'est une façon de parler mais ñoom ñoo ko xeex ñoo ko néewal doole kon mënuñu woon gagner moom kay li xew li am am na ba ñoom nañu dikk dem fagaruwaat jéem waajalaat seen bopp te xam ni que nag ñoom ñoo tooñ seen bopp te gis bu yàlla sàkk mercredi bu yàlla sàkk bu décret yi daanoo dina am ñoo xam dañ mat seen loxo parce ñoo ko liggéey